asalaamaaleykum yéen a ngi si info tey ñu ngi woon fii foyer amo 4 de Guédiouaï. Euh, les supporters de Guédiawaye doon fi def euh, benn benn benn réunion di waxtaan seen biir à travers décision TAS bi ñu dégg fan yi Jamil Faye def si conférence de presse association ZFC GFC aussi def si conférence de presse donc ñoom ñu doon addu si ñaari conférence de presse boobu donc ñu ngi fekk Grand Marie Diallo donc Grand Marie mën nga ñu wax lan mo undu tay présence bi fi au niveau de foyer de de de Guédiawaye. merci Guédiawaye info d'abord ñu ngi leen remercier bu baax euh, gis nañ ni ngeen euh, ni ngeen taxawoo gis nañ euh, taxawu bi ngeen def te amna solo bu baax a baax a baax. waaw tey njabootu supporteru Guédiawaye collectif li nga xam ne ñu nekk ci benn cadre bu ñu tuddee collectif des supporters de Guédiawaye ñoo doon toog di waxtaan di apprécier li nga xam ne moom mooy suite à la décision du TAS lan moo nekk lecture bi ñu def ci ñaari conférence de presse yi. ak lan mooy perspective d'avenir yi pour euh, supporter mu mu nekk nañ ne mooy niñ ko waxtaanee rek mu nekk ne actuellement nii dafa toll fi nga xam ne tey supporterisme actif la ñu toll ci àdduna bi ci li nga xam ne moom mooy euh, mun nañ wax ne club yi gën a mag ci àdduna yi nga xam ne ñoom lañ teg bët tey ci àdduna supporters yi pratiquement ñoo fay décider ba boo xoolee sax ci mercato bi ni mu ko waxee tey ci mercato dañuy wax supporter dañuy wax ñun joueur bi lañ bëgg joueur bi lañ bëgg directive direction directive direction bi dina def la Touba indil leen indi leen joueurs yi ñu bëgg ñu gis ne nag ak Guédiawaye fii nii loolu dafay manqué bu baax a baax ndaxte depuis boobu euh, histoire bi mu amee ba tey suñu dégg woon kàddu supporter yaakaar naa tey duñu egg fii. ci njëlbeen bi nag nga xam ne Jamil fay bi mu defee conférence de presse am invité ci supporter yi waxtaan ak ñoom wax perspective d' avenir yi nga xam ne moom la bëgg ñu déglu ko bu baax mu wane ay preuve yi nga xam ne moom la été pour wax ne moom ba tey ci xeex bi mu doon xeex ba tey moo nekk ci dëgg. lolu lolu lolu lolu lolu loolu nek un fait benen benen fait bi moom mooy euh, association bi bi mu assemblée générale déjà par respect par respect même buñu bëggone woñu sax dinañ ñu ah légui nag comme xex bi jeex na ñoo ngi woo supporters yëpp waaye dañ né ñoo ngi woo supporteru Jamil Faye té ma yakana lolu manque de respect mënul ëpp lolu nonu ndax na ñun ñu supporteru Jamil dañu nek ay supporters yo xam dañu conscient xol lan moy suñu intérêt tay ñu ciy dox.

souvent nous survivre sax bala ñi club crise donc il faut ñu créer Ben, affaire bu nga xamné nous fay deuguer ba nga xamné suñuy suñuy ñun kat ko def ci lenn une bonne organisation ak rigueur. waaw donc pour conclure les supporters de à la sortie de cette réunion là quel point avenir ce à la, sortie de cette réunion, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, dans un premier temps, nous avons à Assemblée générale, le comité des supporters. Déjà, de le bureau Ensuite, noonu ensuite euh, créer un comité de gestion bi nga xam ne lépp lu nga programme buñ ko dënk ci un cahier de charge nous xam euh, gymnase un restaurant un club un partenaire pour un club Le comité de gestion boobu dina travailler ci diir biñ ko jox ba indi conclusion yi ba nga xam ne dinañ ko mën a waxtaanee ci benn assemblée bu gën a yaatu pour adopter décision yi donc ci liñ fi jëlee daal moom mooy dinañ def assemblée générale créé nañ benn comité de gestion euh, ensuite nag jox nañ leen cahier de charge mission bi nga xam ne war nañ dellu dans un court euh, terme pour ñu valider ko par l' assemblée générale Eh, merci grand Marie Diallo mu nekkoon grand Marie Diallo bi nga xam ne moo yor communication supporter de Guédiawaye ñu koy remercier donc on a à côté euh, fameux supporter muy Baara yow Baara en tant que supporter yow tey lan ngay wax ci rencontre bi ñu doon def tey foyer fii. waaw maa ngi nuyu ñëpp vraiment di remercier supporter yi seen taxawaay depuis le début du di leen wax jaaraama parce que gis nañ ni ñu taxawee ci combat bi euh, lenn lañ doon wax mooy association bi. dañoo jël li nga xam ne moo gën a cher suñu muy suñu club de ville le club de Fayon nga xam ne lenn moo ci moo ci xaw a am problème mooy amul consensus ñoom defuñu waxtaan depuis le début du combat mosuñu considéré supporter mosuñu considéré supporter tout le temps dañ leen doon dégg ñu groupe WhatsApp ou bien minimum de personnes di minimiser supporter alors que ñu ñu jàpp ne que football weesu na foofu à ce niveau stade du mondial li nga xam ne football weesu na foofu supporter dafa occupé place boo xam c'est très important

de cette réunion des supporters yow lan commentaire donc man commentaire donc sentiment de satisfaction là, sentiment de satisfaction là, am si réunion parce que pour pour rek donc pour teunk rek liñ fi wax ñun Jamil parce que nous sommes dañuy ay fervent ay fans Jamil Faye wala non non dañoo and ak mom parce que dafa ñëw Géejawaay indi fi un projet ben projet bo xam pour def Géejawaay un club professionnel. lool nak mu réaliser parce que Djamil Faye ba mu en 2011 dans la wax horizon 2017 horizon 2017 moy lan moy ba mu ñëwee pour mom def champion du Sénégal en 2018 euh, en 2018 nek un club africain tay bu ñëmé ba 2017 tay ba ñu demee pratiquement Guédiawaye nekk vice champion du Sénégal pratiquement objectif bi atteindre on nañ ko ak beaucoup de réalisation yu fi def loolu mo taxone ñun ñu top ci ginnaaw Jamil Faye gëm ko parce que fu mu jëlé suñu club ak fu mu ñu indi la ñu dem ba ci biir ay quelques personnes yo xam pour pour pour des intérêts personnels tay bëgg a ñëw caxat caxatee Guédiawaye ñom nak ñu ëpp ñu doolé manam ci walu fep parce que combat bi légalement légalement ñun ñoo wara ñun ñoo ñun ñoo am dëgg. mais Sénégal malheureusement doole moo mën dëgg ñu jaañu doole ñu nag mënuñu defee nekk di xeex ak ñoom chaque jour di xuloo am diw jàppal diw ñu ni ñoom lañ leen bàyyeeg li ñu yor ñun ñu dem créer suñu yëfu bopp. ñu créé suñu yëf boobu tey daal loolu lañ ci tënk ci ci kaw gatal bo amé beneen question. waaw donc ñu nek fek aussi du créé bo borom euh, Guédiawaye aussi du créé yow en tant que supporter tay lan ngay retenir ci réunion bi ñu doon daf fi au foyer de Amokat. waaw salaamaaleykum waa Guédiawaye info du nuyu téléspectateur téléspectateur yëpp ñu nuyu aussi waa Guédiawaye particulièrement sama copain Mbaye di ko nuyu baax baax waaw di wax ni tënoon na réunion bi ci jamm te jeex ci jamm waaw lu lu ci tënk daal mooy supporter Guédiawaye daal l'essentiel yaakaar naa ne ñëpp tënku nañ ci jéem a benn comité benn association pour ñu xool lu ñu jëmale kanam quoi parce que Guédiawaye ñun ñooy Guédiawaye parce que ñun Guédiawaye ñun gars yi naan Jamil Faye Jamil Faye mais Guédiawaye du loolu ñun ñun Guédiawaye dañu supporter Guédiawaye avant président Jamil Faye kon tey président Jamil Faye boo gisee lu tax ñu topp si ginnaawam président Jamil Faye def la moo tax ñu topp si ginnaawam président Jamil Faye daf ñu jëlee si lëndëm ànd ñu dèjà gis nañ ko association baa ngi nii ñoom demaguñu fenn quatre tournées instant ñu ngi commencé jël ay regroupement ñun fu ñu delloon kon ñun faa delluwaat bu ñu nee ay góor dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo dem foofu association man mënu maa ànd ak ñoom sama keneen keneen yaakaar naa mënuñu ànd ak ñoom parce que tëj nañ ñu fi kaso leneen ak leen def nañ ne loo xamante ne lu dul jeex kon tey ñooñu yaakaar naa ne man sama gis-gis boobu mënu ñoo ànd ak ñoom quoi di wax yëpp yëpp yëpp yëpp mooy ñun d'accord nañ si këréetal def benn def benn association toog waxtaan def suñu comité créé suñu ensemble général des supporters mu fal suñuy président defaat suñu bureau ñu toog tënku xool kan la ñu àndal souvent bu fekkente ne président Diomaye Faye moom la moom la àndal bu fekkente ne keneen kenn moom la àndal mais man Doucouré su ma xam-xam ne man président Diomaye Faye mooy sama lépp waaw ku xam-xam ne man président mooy sama lépp parce que du bu ma jox du ñaan bu ma jox de un xamul fu ma dëkk man xamul fu ma dëkk mais kon tey ku fi dem ba am na ba partout dans le monde ba ñu ku ne bëgg sa moyen kon tey ginnaaw yàlla grâce yàlla président Diomaye Faye la quoi moo tax ñu ñu ànd ak moom waaw merci Doucouré donc euh, c'était Guédiawaye info mu ñëwoon leen ci point de presse bi nga euh, les supporters de Guédiawaye ñu ngi ko doon donc li ñu ci retenir mooy ñaari point ñoom yi ñu retenir mooy partir en assemblée générale euh, bi nga xam ne ñu ngi koy au niveau des supporters pour changer bureau bi en plus aussi retenir ne ut seen i kayit pour être légal pour mën a dugg ci projet après partant de là nag dinañ xool ndax ñoom dañuy ànd ak Jamil Faye wala dañuy dem créer beneen club wala dañuy ànd ak association